parce que du Sénégalais rek ñoo fi ñëwoon. Hmm. Gambien yaa ngi ci woon du lii du Sénégambien. waaw amoon na ay sëriñ yu jóge woon Gambie. bien sûr. Jeyte hmm. Dieng Njaabacounda la dëkkoon te Njaabacounda ci hmm. a ngi Gambie. Fodé Kabé Doumbouya Fodé Kabé Casamance la jógee. waaw Fodé Kabé euh, ma. ga ci biir Casamance la Casa. donc dama ne ma ba réussir loo xam ne à l'époque vraiment tey moo jafe Sénégal gii. dajale mhm. suñu sëb ñëpp ànd nangu. Mhm. pour génn kaddu benn bit muy baatu laay laa taxawal drapeau samp drapeau l'islam Sénégal. Mhm. tey Lat Dior kii la héros national. tey fii la ñëwoon bi amee jafe si tubaab bi ànd ak Alboury ñëw fekk fi ak ñi bëree bëri. ñu ànd boole seen doole. gëm seen gëm-gëm duma tubaab bi xam nga ay kano yi nga gis. nga yor ay fetale maqdoom yor ay jaasi ay xeej. dëkku ñooñu. Mm-hmm. loolu ngëm-ngëm ak fit moom rek moo la ci mën a génnee. Mm-hmm. parce que boobu tubaab bi comme comme topp rey na la wala génne la fa nga fa nga dëkkoon. fii rek ñooro la sëriñ si boole seen doole résister jàmmarloo moom ko duma métti. dàq ko nangu ay kànnaayam dàq ko nangu ay kànnaayam lu ay preuve à dama dama dama métti mooy ba léegi Sénégal c'est dommage. Mm-hmm. ba léegi. tey boo rombee poos ko tey xam yaa ngi may laaj léegi normalement ba nga fa jaaree. Hmm. war na am lu fa nekk war nga xam lan moo fa xew. waaw waroon nañ ko mandargal. maanaam la loo xam ne ku fi jaar xam ne fii la sëriñ si. joxe seen bakkan pour l'islam hmm. tey l'islam am na ndam tey. Hmm. donc ñu war nañ leen fàttaliku. wallaay wallaay tout sama le 39 165 22 2021 bi. chaque année dañ koy célébrer avec la famille de Maba Diakhou. ak les familles yi nga xam ne ànd nañ ci xeex bi mm-hmm. ak le maire de poste côté moom Alima ni ko initié mm-hmm. ànd nañ ci mm-hmm. def ko ren moom vraiment ak l'armée sénégalaise alhamdulilah xam naa boo doon ñëwaat ah. euh, ci internet yi lay teewlu ci diggante ba xare bi mu wàccee liggéey defe naa mooy la bataille de Somb waaw la bataille de Somb waaw Pathé moo jiitu Somb waaw defe naa Somb ci topp 65 1865 la. waaw somb 1867. 67 waaw da nga ñuy dikkalaat ci somb ndax somb it am na lu tiis lu fa am mabba wàcc na liggéey. Mhm. daanu na ci toolu xare bi waaye maa la ko defee. Mhm. Eh, dawul kenn kenn sempewul fetal yi ci ginnaawam. Mhm. ci bënnam lañ ko sempee. waaw loolu waxi wolof la. waaw waxi wolof waaw ah, maanaam ñuy dikkaatal ci xare boobu. xam nga tey. maba kenn du moom. jàmbaar la woon nitu yàlla la woon gëmoon réewam. fonk doomu aadama parce que ngay dem xare mu leer xam nga doo delsi nga def testament mira sa bopp wax ak mbooloo mi loolu ko gëm rek moo ko ñemee waa mi dafa dajale ñëpp sëriñ si ne leen leen jukki yi nga xam ne yàlla waxee ne ku defar yàlla am loolu am yàlla fay la te mm-hmm. Abdou Khoudia Camara si di maam ci Alaaji Baay moo jàng jukki yooyu. Hmm. donc diine ji moo ko jàng. Hmm. aaya yooyu. boo hmm. wax ne li muy wax yëpp xam na ne dana dem soo mu des waaye lislaam dana fa taxaw ba faw loolu ngëm-ngëm ak ñeme moo ko taxoon moo ko taxoon a jóg. xareb somb boobu defe naa Lat Joor la defoon généralu guerre waaw Lat Joor mu ngi ci woon. ñan la jàmmaar looloon ci xare boobu. xare boobu moog séeréer si ñoo fa ne ñoo la jàmbaarloon. Siin ak Saalum loolu wala Siin kese. waa Siin Siin rek ñoo fa nekkoon. Hmm. appuyé par les Français nag. Hmm. parce que li gën a wàññi sa sëriñ si avant ñu dem somb en avril dafa am la bataille la coofak tubaab yi ñàkk nañ fu lu bëri mooy deuxième boo xam ne gars yi xamuñ ko coofak mu ci gën a kaw la benn quartier ci kaw la léegi. Hmm. foofu sëriñ si sa sëriñ fa tubaab yi ñàkk perte nañ fu lu bëri waaye tubaab yi. ñàkk nañ fa lu bari lu mat plus de trois cent personnes ñibbi si waat juillet lañ demaat siin ma ba daanu fa ak ñu bëri ay rakam daanu na fa Abdou Ousmane Soxna maa nga naan foon Abdou ko jëkkam dafa des sëñ Ndiogou su ma la déggee. Mhm. mooy sëriñ si amuñu woon ay ngànnaay ni ki ay kano. te waaye mel na ne kon ñoom seen jàmmarloo ci kalimatu laa ilaaha illallah. baatin lañ doon lañ doon demee lañ doon jàmmarloo. seen kaw di jàll ñaan yeeg ñi yor course. Mhm. ñi yor fetal ñi yor ay jaasi. xam nga doom ak ak ak mbooloo ak takku gëm rek xam nga boo boo gëmee rek. Mm-hmm. ak ànd ak yàlla. Mm-hmm. di liggéey yàlla yàlla jàppale la. Mm-hmm, te yaakaar naa tey la boo waxoon am na dafa dem daan som pour l'islam taxaw foofu te l'islam yaakaar naa ne tey siin ku fu julli woon ñu la bubal te la fa nekk ci jumaa kii rek na juróom-ñaar fukk nangam. mel na ne ci xare boobu for naa ci weewu béy ñuy wax ne mabba bi mu daanoo ci toolu xare bi sax Lat Joor ñëw na di ko wëlbati ngir mu jàkkaarloo xibla mu ne ko bàyyi ma nii ma suñ borom def ndax bu ma wëlbatikoo day mel ne dama doon daw xare bi waaw danañuy wax loolu waaw danañuy wax loolu nga ma xam keroog bi mu daanoo Sëriñ Ibrahima Këlil Thiam muy ne ni yaay alajab lañu bàyyi baña moom moo ko jël teg ko fee mabba daanoon na waaye dama ne musulman ñoo gën a xare bi loolu ñu bëri xamul mhm. parce dàq na ne bañ génn fële xeex na ñoom ba génn leen jaxaw keroog Ablaye lu ma tax ma maam ñoom si ñoom moom pour nga Alioune Diop moo ko jël delloo su ko ñooro mooy maam ñoom Abdou mooy maam Baram Diop donc xare boobu sëriñ si ma ba dafa daanu rek waaye dama ne sëriñ si ñoom ndam ñoom ndam. ginnaaw bi xare bi jeexee. waaw mujj nañoo jël ba ñëw waajal ko ni ñuy waajale ab jullit. waaw keroog Serigne Boussa bi mu fa woon. bu mhm. taxawee moom moo ko gën a moo ko moo ko taxawee. moo ko moo ko jullee. waaw. Mhm. Mhm. doom la ci moom. moo jàng sóoru Yaasin nga ña ne woon ñëpp ña ko jegoon ñëpp a fa woon. xam nga da ngay dégg nag xam nga histoire. nettali naan Maba dañ ko jëlee waaye mais kilifa gu mel ni Maba. ak jàmbar yi fi àndaloon. ah. ñun ñii soit ñoo toogaat ay at. mu daanu sama gars yi daw bàyyi ko loolu mu xel xel xel xel xel loolu sax du xel. ginnaaw bi fan lañ ko denc fan lañ ko denc. ñu ko denc foofu. foofu lañ ko denc somb somb ko denc. diggante cuucuñ ak fandang. somb nag waroon dëkk bu mag bi la wax. mais da ngay ba diggante cuucuñ ak fandang foofu lañ denc sax si Maba Jaxu ki ñuy wax Maamu Ndëri lan lan mooy liaison am diggante mu ngi la jor. moog Maba. moog moog moog Maba laa jubloo. Maamu xam nga Maba. maam mooy taaw seen taaw papa mm-hmm. jogu am pate ba cosaana cukkuli tenga la moom mooy seen taaw ma ba mooy seen taaw mu am ci rakk ji Ablaye lu mu doxuma Ousmane Soxna Mangane Malamine Ba Mamou Ndari Ba Mamou Ndari nag moo doon rakam nga xam ne dana ñaanal magam lu ma mos a oote bu nu ñu joxee benn moo joxe fukk. maanaam daal mooy rakk ji gënoon a sës. ci moom ci magam nangul ko defal ko lépp. keroog bi muy dem balaa muy dem euh, somb nga xam ne si dafa dénk wax réew mi maam maamu ndari lépp lu ma yoroon rek mën na ko yore mate na ko moo tax bi mu fi jógee moom ma ko utu maamu ndari moom bi mu fi jógee ban année la fan lañ ko denc maamu ndari mu ngi jëlee jógee 1888 la génn àdduna fii ñu denc ko jumaa ji tëdd ah, mi ngi ci jumaa ji njëkk Sénégal ci la bokk macha allah dans les années 1860 lañ ko fi def. 1860 waaw lañ ko fi def. macha allah waaw 1860 les années 1860 lañ ko dañ ko dañ ko tënkal ba fii donc muy jumaa joo xam ne jumaa yàgg la. kon c'était bien avant les indépendances. indépendance waxuñ ko. waaw 1860 loolu loolu loolu te jamono yi mag ña la. wallaay waaw ca mag ña la woon mag ñëpp julli te ma ba fii laa julli ci jumaa. Hmm. dem sanc da nekkoon ci dëkk moom sanc fa kër ma ba joxu mbaa jumaa mu war fas ànd ak ñenn ñi ñëw julli ci jumaa ba samedi mu delluwaat. donc ci réew mi yëpp feneen julee jumaa muy dëkk boo xam ne muy ñooro tuddoon pawax dimba ci soose dimba mooy li mag pos ma ba bi mu ko conquérir nag vers les années 1860 la ko tuddee nuuru laay quartier bi ngay gis ni sa ndeyjoor ni moo tudd nuuru laay moo tudd nuuru laay mm. léegi dafa leen gis si nag ci la ñu waxee na ñoor turu ñoor bi ñëwee mais ma bañ nuur laay leeru yàlla ko tudde woon macha allah suñu ko xam naa ne li ñu mayoon ci waxtu xam nga comme am na yeneen barab yu ñu war a dem hmm. da nga ñu tënkal waaye tënk bi nag moom da nga ñu dikkaatal ci bâtiment bi nga xam ne yaa ngi wax ne tegu xeer yi suñ Muntaxa yàlla na fi yàgg hmm. hmm. ngeen sañoon mu am ci seen barabu maam bi te ngeen di lancer appel ci képp ku càllaloo ci maba rek wala nga nga doon taalibe ci kër gi nekk ci biir réew mi ak bitim réew ban appel ngeen di lancer ci dëkk bi nga ne dëkkub euh, bi man ñaar ñoo gën a ñor fu ma dem naa ko plaider waaye devant l' état sénégalais ak culture Sénégal benn Pathé Badiane war nañ ko mandat képp ku jullit Sénégal ñu ne ñu lancé fere keroog Pathé Badiane mooy bu jullit Sénégal kenn ko di joxoon cent franc dana ëpp deux milliards ñu defar fa bâtiment boo xam ne loo xam ne àdduna yëpp ku romb xam ne fii la jullit yi duma tubaab yi muy bâtiment historique waaw hmm. benn boo xam ne daal dafa benn ponk la musée hmm. yaakaar naa ne loolu ñëpp war nañ cee jàpp. bu ñu ko fa defee ba pare ñu defaat fa exposition retracé waat les. bien loolu ñu bëgg ak ña fa daanu yëpp ba ñu hmm, xam nañ na ñoo xam seen maam yi demoon nañ fi des nañ fa xam nañ leen bëri nañ. États-Unis de seen soldats yi daanu ci golfe bi utal nañ leen ay monument hmm. ah, dëkk boo dem ña fa dem ña fa dem daanu dañ bind seen tur hmm. ñu ne ñoom lu mel ni part bi xam ne Sénégal yëpp ko bokk amut man kër sëñ Tuubaa bokk lokka alaji abdou lok wara kër alaji omar a wala njaasan ba waa njaasan yang fi woon hmm. waa cene ba yang fi hmm. donc ñooñu ak waa lébu euh, dakar yang fi hmm. donc bu ñëpp bokkee loolu yëpp am fa ndam loolu ñëpp war nañ bokkaat tabax ko te loolu ciy ñaan Atal képp ku ma dégg da nga jokk ñu waxtaan ci xool nañu parce que ñu ngi ci ñu ngi ci kawam bëgg nañ nag fii ak deux ans au plus tard ku jaarati jugee Casamance jëm Dakar daa nga jógee la jëm Gambie boo fa jaaree xam ne la fa xawoon. wala nga jógee Touba jëm si Porokhane jëm si Porokhane très boobu. Mm. war na mënu sax war nañ fa jaar sax. Mm. au moins taxaw ñaan jaar parce que tey keroog naa la ci la maam Thierno Ibrahima Mbacke gën àdduna. waaw tey Maba mi tax ñuy wax Nioro bi mu wàccee liggéey sëñ Bousso bi. mi yoonu Mouride moom moom moo ko taxawee. ko taxawee ah. bâtiment bi bâtiment bi nag. Mm-hmm. Euh, sëñ ki nga xam ne dafa jaxasoo ak famille bi. Mm. parce que maamam naa leen ma ko jëma foofaal caxate ñëwoon na ci fii ci ñoor bokkoon na ci doon dem ci xare bi mu jaxasoo waa ñooro magal gu def ñu invité yem seeti ko keroog moo teg xeer bi pour institut bi nga xam ne dañ fi war a def daara ju mag defi musée ci biir aussi te yaakaar naa maa ngi lancé aussi képp xam ne murid nga gëm sëñ Muntaxa

di am barke. amiin ndax philosophe histoire dañ ciy wax en français ne. que celui celui qui ne sait pas du passé. Hmm. n'a pas droit l'avenir. Hmm. tey réew dafa toll foo xam ne dafa manque ay référence te mag yu démb yi. Hmm. ci ñoom lay war roy pour defar Sénégal gi. macha allah yéen bu ñu nee bay wër. te xalaat mën nga ne màggali mais xar xam xam ngeen la xewoon démb. taarix ñor leen. Mm-hmm. ngeen di ko retracé. Mm-hmm. lii kenn amul suñu fay. te lii dañ ko war di jàngal ci école yi. Mm-hmm. parce que ñu jàngal ay. Sédar ba ay ay yoo xam ne. ay Socrate Socrate yoo xamuñ ko. am na ay philosophie yu mën si a wane roy kaay. macha allah incha allah loolu la ñuy ñaan yàlla. kon ñu xamee ko noonu. asalaamaaleykum wa rahmatulah daal barakaatu. jërë ngeen jëf.